jërëjëf léegi ñu dernière kàddu professeur Ousmane su noppee nag ñu def benn conclusion wax ak presse bi ñaanalante ñi ngi sant ñëpp nag euh, surtout presse bi vraiment mention spéciale ñi ngi leen di sant di leen gërëm Babacar jërëjëf professeur Ousmane Ndiaye euh, moom ci daara Maam Maodo ñu nag moom ñoo bokk daara ji ñu suñu sëriñ tabaarakallah bismillah professeur waa ñi ngi gërëm euh, remerciement mbokk yi doon tag yonent bi jeunes yi ku ci ne dafa def vidéo démb pour wane engagement wam donc ñu ngi leen di sant bu baax ñi ngi ko jaarale ci Pape Amadou Diouf euh, parce que Pape Amadou Diouf moom ci comité bi la bokk tabaarakallah bismillah professeur euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñi ngi leen di sant bu baax gërëm yàlla bu baax a baax di rafetlu jotaay bi ci li fi wàcc yépp ci ay xalaat ak xeeti xam-xam euh, xam naa nag temps bi mooy gàtt moo tax da ngeen may jéggal nuyoo bi rek euh, en fait daara Maam Maodo euh, bokk na ci ay liggéeyam li ñu bëgg incha allah rabbi mooy xam nga réew réew dafay am ay instition am ay symbole yu ko symboliser yoo xamante ni ñoo tabax réew mi léegi keno yooyu nga xam ne moo tabax réew mi keno yooyu dañ ko war a sacraliser ñàkk ko wutal ko ay borne léegi boo xoolee réewu Sénégal li ko li ko li ko tabax ba ñu am cohésion sociale bi amuñu guerre civile amuñu problème waasu li ñu ko may mooy dafa am ñu ko tabax ñooñu ko tabax mooy magi diine yi léegi magi diine yooyu ko tabax nag génn àdduna tabaxal ñu Sénégal bañ mën a nekk ci jàmm dafa am ay symbole yu ñu fi bàyyi symbole yooyu ñu fi bàyyi nag mooy xalifa yi léegi xalifa yooyu kon ñoo symboliser cohésion sociale bu Sénégal ak jàmm ji ak diine ji léegi symbole yooyu ñu fi bàyyi nag li ñu war a def mooy protéger ko ñàkk ko euh, bu ñu jógee fii war nañ fexe bind lettre ensemble wala président fexe ba ensemble ñu woote ñu woote benn code boo xamante ni symbole Sénégal bi bi ci wàllu diine nga xam ne ñoo tax cohésion sociale bi am moo xam ci lislaam bi la ba ci chrétien bi parce que gis nga réew moo xamante ne dangay jullit ñi ak chrétien dañu rayante mais ñun boo xoolee li tax loolu mooy chrétien gi ñi ko ñi ko fi fonde teg ko fi ñoom itam dañoo bay seen waar ba cohésion sociale am ñi fi loon diine ji tamit di mag ñi bay seen devoir ba mel noonu kon war na noonu li ñu li ñu li ñu fi bàyyi ñu sém muy seen symbole ñi war a fexe ba kenn du ko laal parce que moo ñu moo ñu moo ñu protégé preuve bi mooy mois de mars bi passé bi ñu demee ba jaaxle ba jaax dañoo dellu ci symbole yooyu symbole yooyu moo indiwaat cohésion sociale bi kon kooku war nañ ko wural code ci assemblée bu ko protégé ba képp ku nekk si internet bi di ko saaga wala di ko xas wala di ko nangam ak xalifa bi mu mën a doona ah moo xam moo xam xalifa général des Tidiane wala xalifa général des Mourides wala xalifa général de Ceneb wala xalifa et cetera et cetera parce que yooyu ay symbole la gis nga bu ñu nangoo bis bu ñu nangoo ba symbole yooyu ñu désacraliser ko ba moowu xalifa ñi banaliser ko gis nga su boobaa guerre civile dafay am ñàkk kilifa day am stabilité day am parce que loolu moo téye réew mi Cheikh Al Hadj Abdou Sab na wax ne Sénégal yëpp xaj nañ ci benn néeg mais 14 millions xajuñ si néeg mais lan la bëgg a wax foofu mooy li symboliser Sénégal nga xam ne buñ leen tëdd leen ñu tëdd toog leen ñu toog mooy xalif généraux yi ñoo mën a dajaloo décider dara mu daal di normal léegi nag ku mel noonu boo ko yore mais code 80 euh, wala 81 bi protégé euh, chef de l' état mais chef de l' dafay jugee te chef de l'état bu nekk indi nga indi nga problème ci réew mi ay bakkan daanu ci mais mas ngeen a gis benn xalif général bu mas a indi problème ci réew mi bakkan daanu ci au contraire day fekk fu bakkan daanoo mu mu mu dindi ko kon cohésion sociale boobu ñun moo ñu tax a daje bokk na ci boog li ñu tax daje ñu fexe ba li koy symboliser ñu téye ko bi si desit mooy xam nga euh, xas xas nit euh, teguwul ci tudd turam déedéet waa tudd teguwul si tudd turam de preuve bi ma leen si jox mooy Seydina Omar dafa wàcc si benn dëkk am benn waay bu ñëw ne ko kii dafa xas sama papa Seydina Omar ne ko nan la xase sa papa mu ne dafa jàkkaarloog man ne ma ne ma sama papa doomu yoon la maanaam dafa jàkkaarloog man ne ma man sama papa doomu yoon la xam nga tuddul papaam mënoo génn benn kaset bu mu tudd turam tuddul turu waa yi tudd turu papa bi mais nan la Seydina Omar def Seydina Omar dafa ni yéen waa dëkk bi seen aada. nu ngeen di xastante waa dëkk bi ne ko suñu aada li ngay déggee ci sama papa doomu yoon la mooy yow sa papa du doomu yoon mu ni kon dóor leen ko juróom-ñett fukki yar te pourtant tuddul turam c'est-à-dire moo tax nit di ko xas mu ne nga naan la non wax leen fu ma ko xasee nangam déedéet déedéet déedéet nga waaw kay waaw euh, euh, bisi waaw euh, desit mooy Ah, sa kilifa maanaam sa kilifa sa kilifa sa kilifa bu nekkee ci combat maanaam sa kilifa sa kilifa bu amee ay défi am ñu jóg di ko attaqué bu ko laaj ndigal déedéet kenn du dem xeexal sa kilifa di laajte ndigal doo laaj foo ko teg tey bu ñu leen posé woon question ne leen ban saxaaba moo ma sa tuub te d'accord wala yonent ba léegi tuddul baatu seede yi dafa ñëw di tuub si si yonent bi salaa ñu ne ko xaare ba tàkk na mu dem mu daal di dem xeexi ca la dee ba léegi ñëwagul ak si tuubagul te saxaa wala maanaam dafa ñëw doon ñëw pour tuub si si yonent bi bi mu ñëwee ñu ne ko yonent bi ma ngay xeex ak ay noonam jaarul ci yonent bi deful noonu bu dem participer sa xeex ba ba dee ca benn saxaaba yeewu na ci kaw lalam ñu ne ko xare ba tàkk na mu xam ne bu naree sangu farata xare ba raw ko dafa daal di dem c'est-à-dire li ma jublu foofu mooy lii nii tey am na kilifa yi boo leen ko waxoon duñ ci d'accord ndax ñoom mën nañoo supporter lu ne euh, li may tëjee mooy benn point rek la moo di boo xoolee aaya alquran bii di wax wala tasabbu alladina yadduuna min dunillah bi xayri ilmi defal jàngat littérairement scientifiquement ci aaya bi xam nga ne wala tasabbu la wax ba dafa ne yéen yéen jullit ñi bu leen saaga yàllaay jàmbur maanaam kilifa ak leen ko saaga laa boobu laa naahiya la ah mais ñun xam nañu laa naahiya tajizamu fi'layn al awwal fi'lu shart wa saani jawaabu wa jazaa'u ah léegi jawaabu charte bi mooy yasubbu fa bu te ñëpp xam na ni jawaabu charte bu nekk nekkee fi'lu mudaari jërul dugal fa mënoon na war a wax wala tasabbu ladina min dunillah yasubbu yasubbu laa mais jërul faa lu tax mu indi fa faaba ba sa nappi dañu wala tasabbu laaha ba yëpp mu ñu fa yasubbu laa mu indi fa baatu yàlla ñaari yoon c'est-à-dire dafa lay bëgg a xamal ni la nit kilifaam lu mu doye di doye di lu mu waye di waye di boo ko saaga sa kilifa lu mu tedd te lu mu kawe kawe mën na koo saaga waaw kon nag euh, du ma guddal kon ñi ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah Mbàkke suñu sëriñ la suñu baay la suñu waxoon léegi ñuy dem fanaani Touba kon nag ñi ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla di ko wax ni sopp nañ la bëgg nañ la sopp nañ mboolem njabootu diine yi incha allahu taala loolu moo doon kàddu yi